Susan. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaara ñoo ngi leen di ndokkale bu baax ci bés bu tëdd bi ah, alhamdulilah rabbil alamin bés bi lu ko waral mooy yàlla dafa dogal man gore laa bokk gore laa dëkk waaye tamit dëkkaale fii parcelle unité 26 am programme yoo xam ne yu bëri Gorée lañ koy organiser am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ñu fay fekk si ndax suñu waajur dañ ko fay defal ziar at bu nekk waaye mu am ñu bëri ñoo xam ne it dañ doon sàkku ci man organiser dara dakaar ndax yenn saa yi dañuy ragal jéggi ndox mi pour ñëw Gorée xam naa ne nag nuñ koy waxee rek lu jot rek yomba dafay soog a jot. yàlla buur bi dogal ñu jàpp datu tey bi ngir wooteel Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom yonent bi wa sallam ñëpp a ko bokk te it moom lennam xatul woon te it moo njaboote ñëpp ñu woote nag ngir defal ko takku takkusaanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko defee thème bi tamit ñu ne dañuy waxtaane yërmande ndax yërmande mooy lépp yàlla dafa dafa wax jonte sallallahu alayhi wasallam wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin dama laa yónni ngir nga doon yërmande ci alam bi yëpp aalam nag boo ko déggee mooy mbooleem li yàlla bind waaw ci loolu nag lañ doon waxtaan comme ni ngeen ko gisee yàlla dogal na tey am nañu ay ganu shérif yu tedd yu fi ñëw ndax euh, shérif Cheikh Omar Haydara deretu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ngi fi toog shérif Turaat Haydara deretu rasulullah ngi fi toog shérif Mouhamad Lamine Haydara di sët ci shérif Turaat Haydara mi nga xam ne moom la ñu denc ca armée yi ca batuwaar moom tam mu ngi fii boo tuddee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam bés ah deretam ñëw fekkee loolu loolu sak la loolu it macha allah ndam la waa unité 26 nag ñëpp tamit dañ cee jàpp dalee ko ci mairie parcelle waa wax dëgg yàlla dalal nañ ñu yaatal nañ ñu yàlla dogal na sax weekend bi bëri na programme lool te ñoom seen bopp dafa am festival boo xam ne dañ ko organiser waaye nag jàpp nañ ci bés bu baax a baax boole matériel jox nañu ko ngir rek màggal bés bi waaw oustaz yi tamit ñu ngi waxtaan ci thème boobu maanaam yërmande waaw macha allah loolu daal moo waral moo waral euh, jotaay bi fii ci unité 26 te incha allah rabbi occasion yaa ngi waxtaan si yërmande te jamono ji Sénégal Sénégal dafa yëngatu yëngatu yu méttee métti ñuy wëññante sutura di weerante yu bari am fi si nguur gi bu si rapport yu bëri wàcc ban message ngay laaj lancé population Sénégal. wallaay eh, xam naa ne day ndeysaan yenn saa yi ñàkk delloo suñu bopp rek ci ci yàlla la wala ñàkk déglu ay hadis yonent bi salaa salaam ndax yonent bi moom la yàlla yónni ci ñun waaye mission am lépp ci yërmande la ko doxal te it comme ni nga ko laajee ci réew mi fu mu toll. dara indiwul jafe-jafe yi nga xam ne moom lañu li nekkee lu dul ñàkk am yërmande ndax damay faral di wax ne nit ki bu fekkee ne dem nga ba bëgg a wax nit lu ñaaw war nga kaa yërëm bañ ko wax lu ñaaw waaye bu fekkee dem nga aussi ba xam ne yow mënoo ko yërëm moom mais nga yërëm sa bopp ndax boo waxee lu ñaaw yàlla daf la ciy rëbb te it mën nga cee am safara kon boo nga yërëm sa bopp même boo yërëmul nit ñi sax nga yërëm sa bopp ngir bañ a dugg safara te yonent sallallahu alayhi dañuy euh, pour ma wax benn xadisam rek benn euh, kii xadisam sallallahu alayhi wasallam am na benn bés boo xam ne soon na toog si jàkkam moom ak saxaabam yu tedd yi naa Omar Seydina Alioune Seydina Ousmane Seydina Aboubacar ak yeneen saxaaba yoo xam ne mu ngi toogandoo ak ñoom yàlla dogal. mu am benn waa joo xam ne dafa ñëw ci biir jàkk ji dal di simi tubéyam tuur fa ndox ñoom Omar daal di xacc jaasi jëm ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa daal di leen dalal ne leen nañu teey bi ñu teeyee ñu ñëw ba ci nga xam ne moom moo ñëw dugg ci biir jàkk ji tuur ndox dafa njëkk a yëkkati loxoom bu tedd bi teg ko ci mbaggam ne ko yow lii nga def nii lu la ko def loo mu ne ko damaa saf tuur ndox ma gis fii ma tuur fi ndox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yërmandem boobu mu daal di ko ne bu ëllëgee boo buggee tuur ndox da ngay tànn feneen ndax fii jàkk la dañ fi jaamoo yàlla kenn du fi tuur ndox ah mu ne Aliou Seydina Aliou indil ndox mu indi ndox mu sotti ko mu ne ko sobe bi daj na mu ne ko waaye nag bu fekkee ne yéen da ngeen ko bëggoon cor jaasi boo leen ko dàqee dina tas sobe bi yëpp ci jàkk ji ba kenn dootul xamante fu am sobe fu amul sobe beneen bi it ngeen am yërmande ci moom ndax yàllaa ko bind waaye waa ji daal di yëkkati kàddu yàlla di yëkkati baaramam ne ko yow dëgg-dëgg yaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah loolu yërmande noonu la doon naxantee ak nit ñi ñuy dugg ci ci diina ji réew mi nag yërmande xaw na fay ñàkk te warul ndax yàlla daf ñoo bind ci yërmande daf ñuy rey ci yërmande waaye daf ñu suturaalit ci yërmande ndax kenn ku nekk boo xëyee yaa ngi def loo xam ne xëj na lu jaaduwul la te yàlla xam na ko waaye mu ngi la ciy yërëm mu ngi la ciy suturaal kon dafa jot ngir ñuy suturaalante ndax outils yi nga xam ne moom la ñu am muy internet bi mun nañ ci jàng mun nañ ci jàngale mun nañ ci jëriñu mun nañ ci jokk mbokk waaye niñ koy utiliser léegi ñaaw na trop te amul yërmande wax dëgg yàlla.